dalee nag jàmm ci leral point net tey nag ñu ngi daal di xëy ci xëtam mu njëkk masse salariale une hausse de milliards de francs CFA noté mooy li nga xamante rek mooy masse kopparu askan bi maanaam finance publique mu ngi daal daanu rek ci itam ak yi nga xamante dañ ko daal nemmeeku surtout ci ay salarié état waaye nag ab yokkute nga xamante rek dañ ko nemmeeku ci deuxième semestre bi maanaam ci ñaareelu pàcc semestre bi mooy bi nga xamante rek ab yokkute lu toll ci trente virgule cinquante neuf milliards rek moom daal la ñu di nemmeeku waaye tamit yi nga xamante ne ay dépenses personnel rek yu ñu daal di amal depuis le juin deux mille vingt et di toll rek ci quatre cent quarante virgule milliards de francs CFA ñu mën ko xayma rek maanaam ci natt ci quarante huit virgule six pour cent ñu xamle rek li nga xamante ne deux virgule 77 millions ci suñu koppar dañ ko daal di rek dépensé ci employé bu nekk ci ab diiru juróom benn weer waaye tamit ñu mën a xam ne ñu xayma ko daal ci 464 mille ci weer bu ne waaye tamit li nga xamante ne mooy yokk yokkute gi ñu nemmeeku tamit lu toll ci 7 virgule 5 pour cent ñu mën ko rek comparé ci euh, période 2020 bi ci àpp rek ak yokkute gi nga xamante ne rek toll na yi tamit ci 30 virgule 59 milliards ci suñu koppar moom daal lañ daal di nemmeeku ci masse salariale bi